aw maa ngi lay ngi kër. waaye yaa ngi si jàmm. sant bu baax. waaw def nga sañse de wala defati nga sañse. non yow xam nga ni yëf la te mënut a ñàkk ci bés ndax ndaanaan moo xewle. te bu ndaanaan xewlee ñu koy wuy si faam def loolu kese la faam def. dëgg la ñu gis nga bàyyi sa yitte bàyyi say nelaw ñëw wuy si kaaw sa diggante kaaw lan la. Euh, sama diggante kaaw comme ni ma koy waxee rek papa laa koy wax mu naa ma doom kon xam nga loolu fort euh, mu nekk nit ku baax wax dëgg yàlla ku mën nitam koo xam ni tànkam lu dara génn kon bu xewlee man ma teewe ko yoon la. te it du lu ma ko lebal mais borom laa ko fay ndax ma xelal su gis naa ko loolu kese la sam papa may doom vraiment. gis na que def nga def nga teew mais dafa mel ni bokku ci liggéey bi ñëwoo rek seetaan non non non eh, avant tout ci organisation bi laa bokk ci organisation bi comme ni ma la ko waxee rek sam papa la may doomam comme eh, du xewlee bu war croise les bras du ma en tant que invité dama ñëw avant bis bi di di di di di di jot jàpp ci lépp lépp lu ñu war a nekk rek ma nekk ci ndax moomu ko ji nag ma delloo ko ba neex ñu gis na Thiès tey dafa am festival maanaam mu am ñaari événement te teewul salle bi tey mi ngi fes del lan mooy secret eh, secret du leen dul yëg nit ñi rek comme ni waxee ndax mën ngaa xewle luyee fi nga koy defee luyee ay chaise luyee bâche luyee lu nekk mais nit yi kenn mënu leen luyee te ku nekk xam na jot amul dëkk événement yi bari na comme ni nga ko waxee euh, festival yi euh, festeraay bi mi ngi fii mais terewul salle baa ngi fees dell allah moo la wan ni euh, kaaw lien bi mu am relation ak artistes yi yemul rek ci diggante tournage wala spectacle wala dara day demlante ak ñoom dikkalante ak ñoom kon bu xewlee salle bi nii moo la wan ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup.